salaamaaleykum. yéen waa askanu Sénégal yéen la ñuy waxal ci kàllaama wolof. ñun ñi ngeen gis ay sénégalais lañ seen doom yu réew lañu ñun benn problème lañ am fii nii mooy lenn dañoo bëgg ñibbi. dawuñu dem Maroc dawuñu dem Daxla dawuñu dem fenn. jëlal ñëpp suñ benn objectif mooy dem ñibbi instant yi dañoo sonn fii. te yéen état bi dañuy ñaan ngeen gëstuñu surtout gouvernement bi na ngeen ñu gëstu conseil bi na ngeen waxal moom ngeen yónni ñu avion ñu ñibbi. lenn la nañu fii def nañ fi ay mois ba léegi mënuñoo ñibbi. instant yi ku nekk da ngaa xam ne war nga koo doxi donc liñ bëgg mooy ñu ñibbi waxoon nañ ne la 15 la balaa la 15 ñëpp dinañ ñibbi loolu lañ ñu waxoon sax te dañ ñu promettre que ne le 8 dana am ñoo xam ne dana ñibbi boobu ba léegi ñu ngi taaxirlu hmm. teel a nag teel a 16 teel a 16 ba léegi ni dara suñu woo conseil ñu hmm. di ñibbi pas la ñu soxla sinon nag gis nga bu ñibbiwul danañ tàngal fii ba mu tàng jër te bañu ñu dara même bu ñu tëj fii ñu ngor jaral nañu